Sénégal soxla nañu man de sëñ Saal maa ngi jël engagement màggal gu jotati ak gàmm gu jotati maa lay jëndal billet avion nga ñëw. jërëjëf sëñ bi yow mënut a fekk. ak yow weesoo ak yéen yéen yéen i samedi yi. waaw waaw dañ lay jëlal billet nga jël jërëjëf sëñ bi jërëjëf.

Serigne Touba. maa ngi lay parole Dama ni ci tànn loolu rek la ñor ngay jëlee ndigal ci Serigne Cheikh di ñu ko joor ñu koy def ni ko bëggee wala barke Serigne Touba cantaak kon ku fi waay mën a ne amel nañ leen ak ak cat barke Serigne Touba yéen a ngi gor yéen yéen boo leen ne bëgg ngeen suñu mbécc ma dëkk yéen boo leen bàyyi woon suñu mbécc raq ñu ñëw ci mbécc mi ak Tamba waaye mën na ne war na ko fekkee sëñ Saal sakku na barke Sëriñ Tuubaa sakku na yi doy na njabootu sëñ Béthio bii soxnaan yi ñoo ma wax ak jàpp bu jëme ci yow manqué wu ñu dara leen di jox ba jox leen loo xam ne sax daan te loolu yaa koy def ak cant la sëñ Béthio ko jàngale nee na am noonu la nga boo ko def woon am noonu fula bu ñu toogee nëbbu yaa ko def ñu wax dama ne saxal ngeen wax ak Serigne Touba saxal nga dama nag man jaaju waa bakkaayu amul fit te nekk taalibe dox te mën ngeen ko magal gi jàll na def nañ ko te magal gi ci ñetti weer lañ ko wax nañ tàmbalee wax magal gi suba. tubaab du affaire yi noonu lii du am fi teg dëkkal fi ñii mu fi dëkkal nga xam ne bi fi doon ñëw ni mu demee woon ku ne xam na mu ñëw ba def fi nii mu fi def leeral dëkk bi nii mu ko leerale dem ba tay yi dugg suñu biir kër ma ne gàmm jot ñu bëgg koo wor naroon nañoo juum ñun ñoo war a sant Serigne Saliou Wadam waaw yàlla nu Serigne Touba dimbalee ngor musal ci seytaan yàlla nu musal ci seytaan yi

ma wax ko waaye yow sa tasfiya. Ah, waaw bu ngeen jóg woote lu na nga def. waaw ah. xaaral naa loxo ñëpp sëñ bi lu na nga dugg ci di ko wax dama ne nag léegi nag xamal la avancé. C'est grave. loolu la. yow yaa war a njëkk a wax xaaral ba pare rek nga jëm bi toogal rek ñoo la ko ñaan ngir jox waaye déglu leen waay ah waaw ñu ne seen mbéy mi yàq na suñu jëm. waaw léegi ñun foog nga yàqal seen saal bu war faa dem waaw ah suñu jëm kat ak loolu fay def na la. ah non non dama ko dama ko si affaire yi dañ ko war a wax bu leer mais seen seen seen mbéy mi làq. am na loo léegi da ngay def léegi loo xam ne dama ne ay sëriñ bi la. ko waral le barke Serigne Touba loolu nee na si dal nañ si di riir nañuy waxtaane sëriñ bi am nga waxtaan kat sëriñ Xaadim Seen waxtaan bu dëgg la koy wax di ko fekk xam-xam xam naa leen Serigne Touba na waxtaane guddi gi li des ci beneen yi leen ko génne li des ci naanee leen ko génne li des ci lépp leen ko génne moom àgg bu nekk ab dëgg ab dëgg maa ngi bëgg lool ah fu mu sama xol sedd na man daal day mel ni lum naa xamuma fu may tàmbalee wax deug yalla mbekk bi foko ko foko foko ko wessu ko waye nak sama rakk ju bax di da wax lepp e melni tek ci ay kaddu sax dotul am solo loolu sant leen gëreem leen aw yeen mbokki taalibe yi ànd ak man te ni ngeen ko and ak man mu rafet lol Latif sek yalla nga wër yàlla sa baat bi wér maa ngi ñaan ci barkeb sëriñ Saliou nga gën koo man waaw bégloo nga di lool noonu mu wax noonu la ñuy def ñoo lay jëlal billet d'avion saa suñ la soxlaatee léeg-léeg yenn cant yi ñu yónnee la billet nga ñëw waaw yow mënatuñ yow dootuñ la ñàkk c'est terminé tabbal nga mbëgg ci xol yi Serigne Touba neex li ma doon wax ak ñu doon xasidaam lim ci dëxëñ def ko ci xoolal neexit yi ñu nekk lan moo ñu mënoon tàbbal ci mbég mi lu dul xasiday Serigne Touba yi. gaa ñi nañu delluwaat ci njàngalem Serigne Touba nii rek buñ ko caaxaanee. Madame de marie naa maa ngi leen di gendarmerie maa le général Cheikh le colonel Cheikh marie maa le sapeur les sapeurs pompiers ah la police la gendarmerie les sapeurs-pompiers, la santé, le ministère de la santé. le service d'hygiène tous les services de l'État ci tout le préfet du département les ngi leen di sant di santé. borom réew mi ndax moom

seen cër nii ngeen yëngal ak nii ngeen ko yëngale xam ngeen ni wóor la leen ni seen daju bëgg waaw nii mu amee lii fi xew tey ak ni mu fi xewee xam ngeen ni sëriñ bi bëgg na jaa ngeen jëf maa ngi sant ñëpp waaw waaye yow wax nga suñu mbub bu rafet bii ñu sol. Ah, sëriñ bi moo ñu ko solal ci gàmm. mooy sant bu baax. jërëjëf jërëjëf moom nga am ñu ah. loxo yi ma ñaanal leen fu waay jóge woon yàlla na nga fa dellu ci jàmm. amiin yal na leen Serigne Touba ci yoonu jàmm. amiin dem. ci jàmm barkeb Serigne Saliou barkeb Serigne Saliou barkeb Serigne Saliou barkeb Serigne Saliou maa ngi ñaar ñu teel ko dëgg di déwén te déwén daxal nu ren fuuf bi yokk seen i wërsëg yokk seen i wér barkeb Serigne Saliou yàgg